muy dalli ay may tey Seexi Bamba Bamba dañoo ñu jor ko ay way ci bis bu ñuy xëy di sant Bamba xajil ma géew bi te peyi buur bi ma kañ ci xol di yëg di Bamba xol baa ngi nux nux rango ñi tux tux sun jër yi day lox ci say xi bamba daa ay baax xottil ñu ay baax fàggul ñu ay taax ciy say xi bamba daa ñu tabbal jigéen ñu sabbal turam di màggal di san Bamba Seex Bamba doñun yaa gën ña jàlloon bootum borom kun ngay xuse Bamba dooñi ta dooñe jër fañ la tooñe nga dàq ta muñe sa muñ ma Bamba doo duñ yow góor ñaa ngi lay aw diraama kay kenn nga bamba fajul nga ñu faral nga ñu mer nampal ñu faral nga ñu mer nampal fer di xër ci fajal nga ñu xiif daqal ñu koy siif yaa denc sa keef ak munti bambab fagul ñu ab añi ci biir sa sañ-sañ ñu dëkke ay kañ moo war ci bambab faral nga ak bew ku ci sab géew ñun ñoo ngi la yeew di ñaan la bambab sum qutbu du maasum qawsu du maasum kenn du du bamba yeneen du bamba kenn du bamba bamba di bamba bamba di kenn dëkkam di lenn jumam di jenn kii moo di bamba waxam lu roowul kun masa waxyul te bamba nam mel moom bamba yéeréem dafay weex kaalaam dafay weex xetam dafay neex kii moo di bambam du doq di gëstu du sànq waxtu nañ jéem gëstu ci mbiri bamba fi kim bi gudd mu rakklu kaddu di wax lu faadu kii moo di bamba du ree dafay muuñ du fay ak tooñ moo may ñu ab añ tey sëñ ko Bamba fi génnoon daje ji ay noon moom képp ci wu yoon ba ñëw di Bamba Bamba demoon Ndar gisam fa góornoor naa ko dangay nar man maa di Bamba Bamba demoon demoon géej gi et géej te yóbbuwul xeej ba di bamba xalima ak daa téerek di jaada di tagg am daa ba di bamba di taggi am daa ba di bamba ko gaynde gaynde ga jal nañ ko aw nag di ree di kek kek mu naw ba rëkk rëkk ñu yéemu bamba jal nañ ko aw nag di ree di kek kek mu naaw ba bamba bamba nit ne moom bu doon nit kon duñ ko teg bët ginnaaw tu kemb du kenn daa moo ñu fegal tiit moo ñu andil féet màggalu Bamba nawet la dub noor du weñ dafay or giram mi moo wóor tey Seyxi Bamba ñun ñoo ngi taataan am ndox mu ñuy naan ngir mucc niiraan di gaayi Bamba ñoo ngi di màggal bi dam di santal ngir moo ñu muccal ci barke bambam duruy si mbindam yim tagg sangam dañooy xasiidaam ngir sant bambam kafem dañuy naan warga dañuy naan mbaa ñu waxtaan di yéemu bamba dëkkam lañuy sax ngir sax fi day tax nga set ci luy rax lu wuute bamba jumam la ñuy dem ziyaare leeram di noy peexam di tëqi bamba bamba dañoo doy sëgg di son day di bay di ñuy may tey sëqi bamba bamba dañoo wóor dañoo may jóor fegal ñu ay toor tey sëqu bamba day sax di sant tey way di fent ci bépp jant di sant Bamba sant ko moo war jàpp ko moo war kennal ko moo war di jëm ci Bamba yal nañu may ñun wér ak gudd fan te may ñu kattan ñuy jëm ci Bamba yal na fi yàggal wéral te féexal kii ko fi toogal xalifa bamba te yokku fan kii seex am di fal mi kuutaayu mam mi xaliilu bamba damay lu fukkee kii way di jekki alxaaji mbakke xaadibu bamba te dolli daara yi seex góor may kamay fexeero yi ci barke bamba lamin taxawulul fa way te kooki ñu gannal muy Seexu Bamba lamin taxawulul taway te jéggal kooki ñu gannal muy Seexu Bamba subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuuna wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin ربي بما يشرح الأذهان قد فجأ bijaahi afdali man lillahi qad lajaa